ah dégg nga wa loolu mooy li mu ni wa baadu di bi kasratin wad an yafi ka arjulin wa baadu di lenn ci tëgg yi nu la wax te mooy xilla yafi dana dikk bi kasratin di tegtale lu barikat wad an ci na ko arab tërale nga xam ne booba baat rek la fa tëral soo ko fa jëfandikoo jëfandikoo wa majaas xeetu mushtarak la mushtarak mooy baat boo xam ne dafa am maanaa yu bokkul boo ko ca jëfandikoo ay xaqiqa la ci ah ka arjulin ka arjulin jamu rijlin kooku soo ko jëfandikoo ci xilla baax na siixatu xilla la soo ko jëfee ci kasra ba tey siixatu kasra la du majaas du dara wa arjuluhum wal ak su ja safaan ba jaa a dikk na te mooy loo xam ni jamu kasra rekk la am soo ca jubloo lu néew ëpp kii kooku nag ma ngi mel ni kii rijaalun ji firi ay góor bu doon ñettit fi alun ngay wax te fi alun lu bare la moo ko waroon a moom waaye ndaxte lu tax kooku boo tuul arab dafa ciy daw lënt ndaxte rajul ak rijli ñoo bokk màdd su fekkoon ne lu ci ne arjulun nga ko wax wala lu ci ne rijaalun nga ko dafa am rijaalu kon soo fekkee rijaalun ay tànk doo ko xamee rijaalun ay góor arab saf beral kenn ku ci ne tëralal ko benn baat su ko defee soo ko soo ko jëfandikoo ci keneen kaat xaqi xalaat du majaas ndax loolu la ñu ko tëral waaye nag mu misaale ko kas su fii jii firi ay xeer dëgg safa xeer mu mu misaale ko li nga xam ni jam u kasara rekk la am su fiyun wasnuhu fuulun fuulun nag dana dikk ci jamu kasiratu kasra la bokk léegi nee na mu misaale ko li nga xam ne nag dafa amul jamu xilla jamu kasra rek la am moom la ni ka wal ak su jaa ndax dañoo waxoon boo xam ne amul jamu kasra jamu xilla rek la am ni ki arjulun jamu rijlin loolu la nu laal safaanu loolu kon moo waroon doon loo xam ne dafa amul jamu xilla jamu kasra dong la am ma misaale la ko rijaalun jamu rajulin moom nag mu misaale ko sufi ñu ne nag foofu am na nazar ndax safa ji firi xeer am na jamu xilla asfa un am na jamu kasraat am na ni ki sufiyun wasnu fuulun kon bon lii warul doon woon misaalu misaalu loolu nee na nee na dégg nga li faali nismin man saxa aynan afulu nee na baatu faalun tey lisim saxate mu wér aynan ci ayn ñeel na ko ci jamo afulun dégg nga nee na afulun kooku danañu ko jamo bépp faalun isman saxa aynan ni ki tey kalbun nga ni ak lubin su fekkee lu tuuti la jamu xil bu bare nga door wax kilaabun waaye faalun ju lisim du sifa de nee naa la bu tuddee lisim ne sa xel dem bu mu dem ci xaraf ak i feel naka boo nee ca fële yow léeg-léeg ca mu taksir moom bu la waxee lisim rek lu dul sifa tax muy wax faalun bu dee lisim ni ki kalbun wuteeg faalun ju sifa ni ki daxmun aji rëy saabun aji jafe yooyu faalun la ñu waaye kenn du ko jamoo kon aful ni ki kalbun la ni ak lu mu ni nag walir rubaaci isman aydan yujcalu in kaana kal anaaqi wa ziraaci fi maddin wa taaniisin wa xaddil arab mu ni aful jooju nag des na ko def li rubaaci yi ñeel lisim ñu ñeenti araf ba tey isman fekk lisim la waxunu sifa de aydan ba tey wa yujcalu moom afulu li rubaaci yi aydan xaala kawnihi isman bañ a doon sim in kaana surba yu ba nekkee kal anaaqi ni ki anaaq mooy tef bu jigéen wa ziraaci moo def xasab ci lan la niroog yooyu fi ci màdd gi màtt nu ñetteel gi dégg nga ak taanis gi ak limu xaraf yi nga xam ne anaaq du ñetti xaraf la du dëgg ñeenti xaraf la màdd gi mooy ñetteel xarafu mujjoo dikk ziraa it noonu la ku ci nekk mu annas la ziraa xasab ziraaun tawilatun ana su ko defee ñu mel ñu ñu mel ni ki noonu ak mbàdd gi nag ni mu mën a mel su fekkee faalun la wala fa failun wala faulun waaye daal eh, addu adadu laxruf bi ñooyam màdd gi dafa ñetteel su yeboo sax alif la wala waaw wala yaa ak taanis gi fekk baat ba bañ a doon muzakkar dégg nga xanaa di mu annas nee na kon danañu ko jamu afulu dégg nga mu ne wali rubaa wa yaj'alu lir rubaa yi in kaana kal anaaqi wa ziraa'i ci màdd gi ñetteel ak taanis gi ak addu laxruf ziraa'un nga ni ajro mu annas la naka noonu yaminun yi firi ngiñ xam nga yamin eh, dañu koy mu an dañu koy taanisal dégg nga yaminun fajiratun waaw nga xam mu ànnaf la nga ni ay munun nee na nag bu dee musakkar bu dee muzakkar nag kooku moom du ca xiyaas taanis la kon shihaabun ñu naan ashubun kon kon shaaz la ndax kooku muzakkar la wa gayru ma af'ulu fihi muttarib min as-sulaas isman bi af'aalin yarid wa gayru ma lépp loo xam ne doonul loo xam ne af'ulu wasnu af'ulu muttaridun fihi te mooy yenu passé lisim boo xamee ne afalu xiyaasu ca mina sulaas yi te ci sulaas yi la isman te fekk lisim la sifa waxunu ko loo sulaas yi boo xam ni dégg nga afalu xiyaasu ca te muy lisim eh, kooku yaridu dana dikk bi afaalin yan tàng yi dana ca gën bare yan yi dana ca néew hmm, waaye daal afaalin ah, su ko defee moo mel ni ki sawbun kon af'ulun xiyaasu ca ndax saalimal ayni lan waxoon te sawbun faalun la lisim la waaye ayin gi dafa noonu wa saalimal ayni thulaasismal anil du dëgg kon aswaabun ngay wax du dëgg wala xamlun nga ni axmaalun dégg nga wala abaadun abaadun ak anaabun ci adudun ak inabun abaalun ci ibilun dégg nga yooyu yëpp afulu xiyaas yu ci woon wala aqfaalun jamu quflin anaaqun jamu unuqin aktaafun jamu katifin asjaarun jamu shajarin nee na yooyu yëpp afaalu moo yëpp dana dikri afaalu dégg nga ah yaridu bi afaalin min dégg nga loolu mooy maanaam wa xayru ma lépp lu dul loo xam ne afulu mutaridun fiihi ay maqisun fiihi ci sulaas yi te fekk muy isman muy lisim kooku yaridu bi afaalin wa wa xaaliban agnaahu moo filaanu fi fualin ka suradin sirdaan léegi nag wasnu fualin duggoon na ci loolu nu waxoon waaye te suradun ji firi picc surat xeet la ci tayr am picc mi wax surat xaw ma ndax mooy musa njubburi ji wala fi yoo xam ne am na ñu ko koy wax surat moom bëggoon na ci xadd boobu te kooku jamowuñu ko afaal mu moo tax mu dabaatal ko mel na daf ko seeti mu ni wa xaaliban lu bare nag a agnaahum doy na leen wasnu filaanu fii fu alin ci lu waru wasnu fu alin ka qawlihim suradun wa sirdaanun fismin muzakkarin rubaaciyin bi mat saalisina falatu anhum tarak wa af'ilatu boobu wasnu ci jamu taksir ittarada qiyaasuna anhum jóge ci ñoom fismin ci lisim muzakkarin juy muzakkar rubaaciyin buy ko jóg ñeenti araf bi maddi saalisin ànd ak ñu xëcc ci ñetteel ba ak nu arafu xëcc wa mën a mel waaye nag muzakkar la du mu annasu ni roowul ak ziraa ak anaaq ñi ki tey qazaalin nga jam ko aqfilatin ay loos raxiifun aw miis nga ni arxifatun amuudun ab kenu nga ni amidatun jëf nga màdd gi nu mu mën a mel comme que li ko wutaleeg ba ñuy jamoo kale kooka mu anas la woon anaax ak zira ay mu anas kii muzakkar la afilatu ittarada fismin muzakkarin rubaaciyin ismin waxunu sifa muzakkar waxunu mu annas kal anaaq wa zira rubaaci waxun sulaasi kooku afilatu taran walzamhu fi faalin aw fiaali musaaxibay tadciifin aw iclaali la ma la waxoon ni mudaaf ak muattal ci idgamu taksir ñooy bokk ay atte wa walzamhu taqool wasnu afilatu fi faalin wala fiaalin musaaxibay tadciifin yoo xam ne dafa ànd ak ak ràggal ah dégg nga musaaxi aw musaaxibay tadciifin dafa ànd ak ful day mu daaf daal aynuhu wala muhu min jinsin waxidatin aw iclaalin wala ràggal kooku su ko defee kon ni ki zimaamin mu daaf la ndax zamama du mu daaf ah ni ki madada kon nga ni azimmatun ay nos zimaamun wala nga ni finaaun mutalul ayn wala binaaun min banaytu du dëgg mutalul ayn nga ni abniyatun ay tabax dégg nga qabaaun nga ni aqbiyatun ay xaftaan finaaun nga ni afniyatun su ko defee fuclun li naxwi ahmarin wa xamra foo fekk afalu ci góor mu annasam faalaa u kooku jamu taksirin fuclun la war a doon xumrun sumrun biidun ci abyadoog baydaaw kookoot fuclun la di biidun bu ñu la noon maa wasnuhu fuclun ngay wax waaye kenn du ni buydun kenn du ko ndax soo ko defee kon yaa ngi day soppi ko waaw yaa bu sukkoonee ci gannaaw dàmm nan lay xal def waaw te kon soo nee buutun soppi faf cosaanu baat bi looloo tax kooku soppi kasra ga dàmm ga kasra mooy gën a woyof soppi yaa ngi waaw looloo tax nga wax biidun de waaye biidun bu ñu la nee maa was nu hoo ne foolun ni ki xumlu moo tax mu ni lépp loo xam ne afalu faala u si fas góor sa afalu bu jigéen ba faala da ñooy bokk foolun foolun bu dee ay góor nisaa un beedun dégg nga wa rijaalun beedun nisaa un xumrun wa rijaalun xumrun kii jamu ahmar kii jamu xamra dégg nga wa fi'latun fi'latun ci jamu taksir yudraa danañu ko xam jam an muy jamu waaye bi naqlin ci toxal sama anil arab rek la qiyaasan ñuy wax sibyatun jamu sabiy alun lismin rubaaciyin bi mat قد زيد قبل لام وفعل لاسم رباعي بمد قد زيد قبل لام إعلالا فقط ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف نينا فعل جمع تكسير برلا للتك... جمع تكسير للكثرة فعل تلبوك كوكونك جن لسمكم موم لاسم رباعي نينا لاسم رباعي غوخاني dafa am bi maddin ci madd goo xam ne xat ziida dañu ko ca yokk te na fekk maddu zaida nekk ca te itam maanaam madd gi moo ñetteel te fekkit faqada ñàkk na ilaalan ak rag raggul doonul lu raggug mu dégg nga loolu danañu ko jame fuulun li si mu rubaax yi bu ñeenti araf boo xam ne xarafu ñetteel wa madd la te madd ga zaida la te it laam ga dafa wér ràggut kooku niki tey xadaalin ji firi aw loos lisim la rubaaciyu la xarafu ñetteel wi dafa ak màdd la boo xam ne zaida la te laam gi wér na noonu la xadaalun mel nga ne xuzulun wa xadibun ab caru garab xudub amudun ab keno umut kon su yoboo mbijaan gi xarafu rag wi alif la ni ki xazalin wala yaa la ni ki xadibin wala waaw la ni ki amudin yooyu yëpp umudun nga ni xuzulun wa xudubun wa umudun ah maalam yu daaf féeg doonul mu daaf dul alifi boroom xëcc ga nga xam ni alif la féeg nekkul mu daaf fil aami ci li gën a bare fil aglabi maanaam fil xaalibi daal xaaliban nag su fekkee ni maanaam lu mel ni faalun ni ki xazaalun kooku day su fekkoon mu daaf la kon lay gën a bare nag moom du am du am fool kenn du ko jamo foolu dégg nga ni ki tey zimaamun fala yujmau ala foolin kenn du wax zumumun ndax mu daaf la ayin gi maanaam mu daaf la ñaari miima ci zimaamun ismun rubaayun bi maddi sa bi maddin xat zida te fekk laam gi wér du moom la xadd bi dëgg na ci zimaamun waaye nag comme mu daaf la te mbijaan gi di alif kooku moom néew na du ci am daal lu néew la ci am sumbi jaan gi doon waaw wala muy yaa du du tee mu mën a am mu des dégg nga kon kenn du wax ko fuulun ñu war ko def afilatun bopp zimaamun nga ni azimmatun afilatun waaye dooni zumumun loolu moo ëpp daal su ko defee nag eh, su fekkee ni eh, yàlla sariir nga ni surur su dee xëcc gi waaw la ni ki zalulun nga ni zulul waaye nag su fekkee alif la ni ki zimaamun xaaliban du ñu wax zunun xanaa eh, lu néew goog ni ki inaanun ji firi ab goog ñu naan ununun kooku day de gees na ko waaye daanaka amul morom maalam yu da af feeg doonul mu da af zul alif yi borom bi jaan ga nga xam ne alif la ni ki zimaamun fil aami fil xaalib xayrul xaalib moo demee ni ki inaanun googu laab ñu naan ununun aywa wa fualun jam an li fualata urif fuulun ci jamu taksir lil kasra urifa min xamees na ko jamaan mu nekk jamo li fualata ni ki qurbatun ak jaamu yàlla nga ni qurabun dégg ka qurbatun wa qurabun wa xurfatin wa xurafun kon fualun nee na wa naxwi kubra ak lu mel ni kubra mu annasu akbar lu mel noonu eh, di sifatu boo xam ne bi alifu tanis la àndal fuala kooku danañu ko jamu fualun ka innaha la ixdal kubari kubari jamu kubra la naka noonu suxar jamu suxra la wali filata fial filatun fialun jamu taksiram la lil kasr kasrati ni ki qirbatun wa qirabun wa fir kooku su laam ga ràggoo nit sartu ca laam gu wér moom wa firyatun wa firan wa miryatun wa miran mira fialun dégg nga wali fialata fial wa qad yajiu jamuhu ala fual fialatun nag qad yajiu mën na dikk lu tuuti ay tàng daal jamuhu ñu jam ko au lieu ñu ni fialun ñu ni fualun bi dammil faa waaye loolu xanaa ida kaana mu atalla laam bu laam garagee daal moom dégg nañu ko ci niki lixyatun ab sikkam sikkim ñu ni luxaa dégg nga amma bu laam nga wéree kay ni ki kisratun nga ni kisarun sidratun nga ni sidarun xirbatun nga ni xirabun wala sax muy mu attal ni ki firyatun nga ni fira waaye nag mu ni danañu ko jamo léeg-léeg ala fualin bi dammin fa fattin ni ki lixyatin ñu ni luxaa xilyatin ñu ni xulaa te xam lixaa ak xilaa loolu mooy qiyaas waaye nag dégg nañ caat luxaa ak xulaa waaye foo ko fekk nag mu atallu laam la dégg nga moo ne fi naxwi raamin du tiraadin fuala moo ne fualatun fualatun mubtada la du tiraadin boroomu qiyaasu la faw fi naxwi raamin ci lu mel ni raam min kulli sifatin li muzakkarin ci maanaam faa'ilin boo xam ne ismu faa'il la tey mu'tallu laam dégg nga lil aaqil ka qaadin ak raamin dégg nga nga ne qudaatun fu'alatun la qudayatun moo doon wasnu bi raamit rumaatun rumayatun la bëggoon kooku fu'alatun fi naxwi raamin dafa doyloo misaal walis xadd fi naxwi raamin ci bépp wasafu faa'ilin joo xam ne dafay mu'tallu laam tey li muzakkar aaqil góor a ko moom gu am xel xanaa du lu mel ni far xisaanun fasu góor kooku góor la waaye du aaqil maanaam kon nag sifas nit la tey faa'il muzakkar mu'tallu laam kooku danañu ko ko jàmm ka qaadin asluhu qaadiyun mu'tallu laam la ñu ne qudaatun raamin mu'tal wa shaa naxwu kaamilin wa kamala nee na siiw na it naxwu kamalatin ci kaamilin maanaam faailin li muzakarin aaqilin saxiixil laam kooku faailin faalatun bare na ca niki kaamilin ajmat wa kamalatun waymat faala li wasfin ka qatilin wa zamin wa haalikun wa mayitun bihi qamin faala ba tey ci jamu kasra yi la bokk dégg nga li wasfin mu ñeel sifa nag joo xam ni dafay tegtale halkande wala tartar bu dal nit bu ne ci nit ni ki mayit xatilun ñu ne xatla dégg nga mayitun ñu ne mawta zaminin aji lompañ koo xam ni mënaratul boppam ñu ni zamna mu ni wa haalikun wa mayitun bihi xamin wa haalikun xaminun aji yelloo la moog mayitun bihi haalikun wa halka mayitun wa mawta kon li wasfin ka qatilin da li wasfin dallin ala halakin aw shiddatin wa mayitun danga koy rafa mubtada la wa mayitun xaminun bihi kooku moom ci liraaba mubtada kon bon moom jagoowul wasnu xaas fa qatilin failin bi maanaam maf'ulin la zaminin failin la haalikun faailun la mayitun failun la xanaa kon moom wasnu xaas faalewu ko nay sifa soo xam ne dafa tegtale alkande ci maanaa bi rek la xool moom faala sifa soo xam ne dafa tegtale alkande wala tartar xatlaak mawta yooyu xam nga ne alkande la tar wala mu tegtale tartar bu nekk ci nit ni ki zamanatu ak lompañ nga naan zamna waaye kon moom niroowul ak ki naan wasnu sàngam wasnu sàngam lañ ko war jam moom maanaa mi la xool xam nga ne ndax فعيل لك علل اسما صح لاما فعل لفعل اسما صح لاما فعل والوضع في فعل وفعل قلل نينا آه لفعل نيلنا وزن فعل اسما ميلتم نيكي درج درج دال دنيا كو تروار يوي درج te lisim la te laam gi wér ñeel na ko ci jamu taksir lil kasra fi'alatu ngi ki dirajatu wal wad'u mu ni nee na tërug arabiya bi xalalahoo neewal na neewal na jamu fi'alatin ci fa'lin ni ki zawjin ñu naan ziwajatun wa fi'lin ni ki qirdun ñu naan xiradatun xiradata wal xanaazir wasnu faalin dégg nañu ko ci zawjun wa ziwajatun fiilin dégg nañu ko ci ni ki xirdun wa xiradatun waaye nag barewu ca ni mu baree ci fualin dégg wa faalun wa fualun li faailin wa faaila wasfayni naxwu aadilin wa aadila uzzalun fualun jamu taksir lil kasri la kasra dégg nga ñeel na wasnu faailin ak faailatu ñoo ko bokk dégg nga ni ki aazilun aji yedd ju góor wa uzzalun aazilatun aji yegg wa uzzalun yooyu fu alun dégg nga naxwu aazilin wa aazilatun yëpp nga jàng ci def ci fu alun wa misluhu lu yem ak moom mooy al fu aalu jëñu xëcc fi ma zukkira ci loo xam ne dañ ko góoral ni ki durraabun durraabun maanaam woy dóor jigéen muzakkar nag rek la nu wax bu dee mu annas duñu ko def fu alun am na ca ni ki uzzalun waaye amul fu alun waaye danañu ne qurraun ay jàngkat tujjaarun ay commerçant uwaamun suwaamun ay warkat waaye fekk góor lañu doon moom la ni wa misluhu l fuaalu fi ma zukkira da ngay sàdda kaaf fi ma zuk bu ko firee fi ma zukkira ci li ñu tudd déet fi ma zukkira ci lu ñu góor fuaalu wa zaani yaar yii fuaalun ak fuaalun na daraa néew nañu nag fil mu àlli laaman ci loo xam ne dafa ràgg laam ni ki xuzzan wala xuzzaun aw kaanu xuzzan xazaa yaxzu du mu'tallu laam la aw kaanu xuzzan jam'u xaazin lu mel noonu nag barewul ndax xuzza xuzzayun xuzzayun la woon ci cosaan waaye nag ñu soppi ko alif xuzza tanwin gi nag amoon na tanwin moo tax ñu ne xuzzan xuzza su fekkoon ni amul dafa am taara xuzza rek de ah faalun wa faalatun fiaalun lahuma faalun ak faalatun fiaalun lahuma danañu leen jamu fiaalun dégg nga di ki tey sawbun kaabun wa kiaabun dojar tàng sawbun wa siyaabun kon su yeboo sax di muctalul ayni saxiix la ni ki kaabun wa kiaabun wala mu muctalul lajwafu maanaam muctalu العين بالواو لا نيكي ثوب وثياب ولا فعلة جا نيكي قصعة وقساع هادنغا سوكا دفي ولا صفة لا نيكي صعب وصعاب دنغا يوي يب فعل وفعلة كون دفا بغ ني سوي بو لسم لا ولا صفة فعال دانا نيو لين كو جام وقل نيونا نك في ما تي لاغا خاني عينه عينم اليالا امنا بو عين غي واو موم تيو كو باري نيكي ثوب وثياب waaye nag bu ayin gay yaa ni ki dayfun kooku néew na ca dégg nañu diyaaf de ak dayatun mais ca diyaaun faalu nag faalatun dayfun ak dayatun yëpp dégg nañ ca fiaalun diyaafun ak ah diyaaun waaye nag néew na du dëgg néew na kooku wa qalla fi ma aynuhu lyaa minhum ah dégg nga wa faalun aydan lahu fiaalu ma lam yakun fi laamihi ictilaal faalun lisim ji ko yor danañu ko jamoo fiaalun ma lam yakun feeg nekkul ictilaalun ak ragg fi laamihi ci laamam maanaa dafa mel ni jabalun nga ni jibaalun du dëgg kooku danañu ko def danañu jabalun jibaalun faalun fiaalun ndegam laam ga raggul aw yakku mudaafan wala nekkul mudaaf bu dee naf dégg nga de mudaaf ni ki talalun ji firi gent wala laam ga ràgg kon dégg nga maala aw yakku mudafan kon naxwu talalun kon afaalun ngay wax nga ne atalalun dégg nga wala batalun abtalun ngay wax waaye dooni dégg nga bitalu nag kon wa mislu faali wa mislu faali dutta faalun nag bu doon faalatu nit ba tey noonu la na zutta ci wasnu ni ki raqabatun faalatun nga ni riqaabun samaratun nga ni simaarun mooy wa mislu faali zutta moom ci kaw ni danañu leen jamo fiaali wa fialun fialun yi ñu koy jamo bari na torop mu ci gën a bari yi ñu koy jamo dana wa fialun ak fuulin danañu leen jamo fi aalin faqbal nangu leen ñoom itam fiilun bi kasrin wa sukun wa fualatun faqbal nangu leen ni ki fiilun ni ki zibun fuulun ni ki rumxun gani zibun wa ziaabun wa rumxun wa rimaaxun nee na ak lanati wa fi wa warada ñëw na it moom fi aalun fi failin joo xam ni wasfa failin sifas failin ismu fail failin ji ismu failit bare na ca nee na dikk na ca dikk na ca niki zarifun ku xoramu wa ziraafun zarif wa ziraaf wasfa fail ndax ismu fail la